asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi man la Djibril Diallo Pikine daagu daan. ok combat Modou Lo Ama Baldé arène nationale huit kilos lañ koy defee mais huit bi kañ lay arrangé. non huit kilos bi arrangé wul ñaari mbër yëpp nga parce que buñ ko defee huit kilo liñ si waroon si am si ay euh, seen naataangoo nekk seen ginnaaw supporters yi ak yooyu ñoo leen di war a ñëw may leen force te bu ñu demee ba gisatuñu loolu arrangé wu leen. il faut ñu mun a dugal quelque personnes yoo xam ne ñu mun leen gere waaw ñu mun leen may force boo xam ne supporter moom fépp fu mu demul rek kooku arrangé wul kenn mooy si football wi mooy si làmb bi fépp ok merci ok. Bintu laa tudd sant Géeju. combat Ama Modou Lo wul kenn ndax man boo gisee mais sawar di si wax parce que combat yooyu bi fi amee rek jaaykat yi dañuy ñëw te kenn ku nekk. xam nga li nga bay sa kër te ñun tamit jaaykat yi ñuy taaba taaba si loolu noonu tamit supporter yooyu noonu di dem di dugg stade bi si la ñuy gën a sawar di dem di jaay su ko defee ñu am lu ñu yóbbu suñu njaboot loolu moo tax véhicule bi moom arrangé wuñ moom dëgg yàlla. franchement waaw Ama ak Modou Lo. waaw ñoom ñaar. waaw kan la ci véhicule bi arrangé. man de boo gisee may wax de pour am mbir mu jaaykat bi. Mm, ok waaye pour pour ñaari supporter yoo ne ku mu arrangé arrangé wul arrangé ñaari mbër yi rek parce que supporter mooy indi ambiance bi ambiance bi boo gisee mbër bi tamit di sawar bu gisee public bi si la mbër bi tamit di di sawar di di di sawar bi daal waaye noonu noonu mbër bi kese bu demee si biir stade bi moomu kese di bàkku xam nga loolu tamit day vide lu neex waaw man loolu laa gis. supporter tamit day ci mbërëm. déedéet waaye nu mu def de presse ñoom tàmm nañu ko nu presse presse presse am huit kilos moom mi si fiy am moom dëgg yàlla waaw. man salaamaaleykum man ñu ngi may wax Laye Ndiaye maa ngi dëkk Pikine. waaw alors dañ doon laaj combat Modou Lo euh, Ama Baldé bi dañ ne huit kilos lañ koy defee. ci arène nationale Pikine koy defee. Hmm. kan lay arrangé wala kan lay arrangé bu ñu koy lañ koy def Pikine lañ koy defee. Hmm. kooku Ama lay arrangé parce que li tax muy arrangé Ama. bu ne wii combat bi dañ koy def Pikine pression bi ak ak public man xam naa ne pression dinañ teg pression boo xam ne aama bu ñëwee mën naa vandaliser combat bi parce que dafa nekk nitu nitu jom nekk nit koo xam ne aama képp mooy mbëru Pikine boo xam ne amul frontière koñ bu ko neex yendu koñ bu ko neex fanaan moom lañ ñëpp faral mbër la moo xam ne Pikine gépp mën naa xaw wax ne ne Pikine gépp faral nañ Ama tey bu ñu ne woon dañ ko defee huis clos y mooy moins de pression sur Ama te gëm naa ne yor na kàttan doole ak fit bu mu daane Modou Lo. Ah, man maa ngi tudd moo Diop quoi waaw. léegi combat Modou Lo Ama Baldé. à mhm. qui ah, man pour man euh, euh, bu huis clos amee rek bon défense bi si côté waa si waa Pikine lay doon quoi euh, Ama ñëpp xam nañ ne public bi mooy mooy doolam ko kon gars nañ def de de sorte que ñu permettre au moins. même bu fekkee ne dañuy limiter nombre bi ñu permettre waa Pikine ñu dem assister quoi dooleel seen mbër quoi voilà et nous lui souhaitons une bonne chance quoi yàlla na ko yàlla may dem. Uh-huh. puisque c'est son premier. Mm-hmm. grand grand grand combat dans la mm-hmm. cour des bi. Mm-hmm. est-ce que présence supporter du dem pression supplémentaire ci moom ba nga xamante ne dina salfaañe lambam. Modou Lo. ama non non non non non ama man gëw ma ne mën na am pression si àdduna quoi gëw gëw ko quoi parce que il n'a rien à perdre quoi si combat bi surtout bon euh, bu côté bu pression di am si côté Modou Lô lay doon oh, ñu daal li ñuy ñaan moo ñu permettre public bi ñu am accès pour ñu mun a doole suñu mbër nous les Pikinois quoi ñu mën a doole suñu mbër voilà. ma ne maa ngi tudd Ndeye Samb dëkk fii en face stade Alassane Djigo. a euh, combat Modou Lô Ama ñu ne dañ ko war a def arène nationale fii Pikine. waaye huis clos lañ koy defee ñàkk supporters yooyu ñàkk teewaay supporters yi kan lay arrangé ah, yi. dina arrangé arrangé wuñu de ñun waa Pikine bu dee fii lañ koy defee Pikine moom arrangé wuñu ndax Pikine xam ngeen dañoo am public yéen xam ngeen ni pikin dafa am public sa xale yi bu boobaa it dina dinañ police yi dinañ dàq ba doyal dinañu sàmm dinañu xale yi daal dinañ sonn jour boobu waaw ndax xale yi moom Pikine moom xam nga ni moom danoo bëggante. ah bu dee Pikine lañ koy defee kay du ñu arrangé du arrangé wul Ama arrangé wul ñun yaay yi ndax suñu doom yi dañoo bëgg Ama waaw sa buñ sañoon nag Ama daan Modou Lo ba war ci kawam di ko mamaañe ñu kontaan suñu xol yëpp sedd waaw. man jaaykat laa ñun tam duñu arrangé nag ñun stade lañ am ñun ñoo ngi nii jaayu ñu nawetaan. daaw jaa xam naa ne ren tam ñu mu gis nga ni mu mel championnat baa ngi nii ñu huis clos fii jaay ñu defuñu dara ñoo ngi nii ay oma la ñuy jaay ko eau de Javel sa ay jaaykatu stade lañ dañuy jaay crème di jaay sandis di jaay lépp problème lañ am daal bu ñu sañoon daal ñu bàyyi lépp ñaan ci yàlla ñun ñëpp mbas mi jóge fi feebar bi daal ñun dañoo bëgg lu ko ñu ñaan àndandoo ñun ñëpp ñaan tuub jéggulu ci yàlla feebar bi jóge fi ñu delluwaat suñuy activité stade yi delluwaat mel na meloon ñun ñu delluwaat ci li ñuy def njaaykat yeeg ñëpp fi mu ne nañoo sonn ñun ñëpp am problème moom ku la ko waxul rek ku la ne awma problème rek dalay nax waaw ñun jaaykat yi ay jaaykatu stade la stade bii lañu am Alassane Djigo bu AS Pikine di football fi mu ne ñu am problème ndax suñu doom yi dañuy yëg ci état yi ñu leen di dàq ka def lu ne muñ sañoon dugg seetaan dana métti torop ci Pikine Modou Lo la arrangé waaw wala ñu làmb ji boog yóbbu ko fee feneen waaye Pikine dina métti ci xale yi torop jour boobu bu ñu sañoon daal nag moom ñu daal di rek mbas mi dem ñu bàyyi ko mbas mi dem Ama ak Modou loo jàkkaarloo Pikine public bi yëpp wàcc ñun yaay yi ñu takku ba dëgër gunge Ama mu daan ko. ndax Modou moom dafa dugg Pikine moom wan ñu dooleem sax ñu sañoon nag Ama na ko daan ba war ci kawam ñun ñoom ñu àndandoo war ci kawam. man la Yankuba Diédhiou frigoriste waaw. dañ doon laaj. combat Modou Lo lañ koy def hmm. bi kan Gris Bordeaux ba léegi arrangé na Ama Baldé parce que ci feefam ci feefam la nekk waaw ci la nekk mais en aucun cas Gris Bordeaux bi da koy arrangé même fekk amul supporter moom moom forcément Gris la nekk arène nekk waaw Gris Bordeaux bi moom Ama Baldé. la nekk arène nationale dëkk Ama Baldé la nekk bi nekk moom na ko waaw arrangé na lool. moom dèjà même supporter ñu mais yuuxu yi yuuxu yi si bëri rek moom da koy dégg mën na ko ah, ah, yuuxu rek yi war yuuxu ci mbedd rek moom mun na ko dégg see bi waaw. jàpp na ne Ama Baldé da ko arrangé à 100 pour cent laa la micro bi arrangé na ko lool sax waaw. waaw man Mamadou Diouldé Diallo laa tudd combat Ama Baldé am Modou Lo bi ñun xam naa moom lu ko gën a arrangé mooy Ama Baldé pour ñun supporters yi dugg. moom ñoom moom lañ ci gën a bëgg daal te xam naa ne aussi moom si jëm boppam euh, pour mu mun a am puissance bu mu gën a gën a bu mu gën a war a am il faut supporters yi fekkee affaire bi mais bu fekkee ne huis clos la moom dina am tuuti manquant donc man loolu laa ci yaakaar ñun waa Pikine mais yow looy tontu ñuy wax ni Ama bu supporters yi bëree pression lay moom ndax combat lu toll nii mosu ko joué roi des combats roi mais Ama yàgg naa bés yu mel ni Ama moom amul dara li muy wàññi fi moom. mais lii roi la de. waaw kay roi des arènes la da koy door a jot mais kii tamit mu ngi ci tànkam kii ni mu ko amee Ama mun na ko amee noonu nga xam naa ne ñaar ñoo xam ne kenn ku ne da nga am ginnaaw te kenn ku ne sa ginaaw bi moo lay poussé ndax yaa ngi calculer ñi nga bàyyi sa ginnaaw kon am naa yaakaar ne Ama aussi moom moo ci gën a am sax Modou ndax yaakaar la ci am te yaakaar bëggul saa borom kii ko. te am nañ yaakaar sax borom dina ko may moom ndax Modou Lo foofu la jaar ak kii Eumeu Sène ba yàlla may ko kon moom am na yaakaar pour mun ko am tout est possible rien n'est impossible. donc huis waaw huis clos bi bu ñu xoolee ba xool euh, bu ñu seetee daanaka Modou Lo gën a parce que moom déjà mu ngi ci top bi mais kee moom supporter bi moom daanaka affaire bi arrangé ko bu li ko gënoon arrangé mooy ñu bañ ko def huis clos. loolu moo ñu ko doon arrangé supporters yi ñëw ak doole ñu supporté ko ñëpp mu gagné rapidement waaw jërëjëf. man la Mamadou maa ngi dëkk Pikine syndicat waaw ñu ma laaj ci wàllu combat Ama Modou Lo waaw foofu man li ma fi wax moom combat rek lu ne mën na ceexe wane combat nag balaa muy neex moom mu am ay supporters quoi xam nga rek combat boo xam ne amul ay supporters yaa ma gën a xam loolu neexul il faut mu am enjeu da ci am ci biir kon supporters tamit am nañu rol ci biir. kon war nañoo mën a dem supporter si wane combat wii kolo to man moom damay gis ne man moom loolu neexul ko waa walaa muy neex moom ñu bañ koo def wii kolo man loolu. ñàkk a teew teewaay supporter yi kan la arrangé kan la arrangé wul. ñàkk a teewaay yi arrangé wul Ama man moom loolu la gis ndax fi mu nekk nii Ama dafa nekk nit koo xam ne nitu mbooloo te mboolom tamit da koy pousse ci lu ne yaa ngi dégg li ma la mbooloo mën naa tax mu def effort boo xam ne yaa ma gën a xam quoi loolu yëpp da ci am moo tax ñàkk a am supporter loolu wóorul ci combat bi mieux vaut nag buy dem mu yóbbaale ay supporter am. mbooloo mi tamit mënul nekk pression non man mbooloo bi moom gisuma da koy def supplémentaire boo xam ne mën na tax mu ñàkk combat bi mbooloo bi da koy yëg puissance man moom sama gis-gis loolu laa gis mbooloo ci la bokk ndax ñoo ko yokk doole quoi xam nga loolu man loolu laa gis sama gis-gis. waaw man moom loolu laa gis huis clos bi moom moo loolu la arrangé man loolu laa gis. Euh, Cheikh Omar Gueye correspondant 2 Cheikh Omar ñu ngi lay laaj euh, combat Modou Lo Ama Baldé huis clos lañ koy def te arène nationale Pikine lañ koy def huis lañ ko bëgg a defee huis clos bi kan lay arrangé. Euh, huis clos bi amoon mon avis gis naa ne euh, dina xaw a arrangé tuuti kii di xam ne mooy Modou ndax booy xool Ama macha allah il est très populaire booy xool sax am na benn combat moo fëgg la j'étais à Guédiawaye mais dafa mel ni jour boobu fa la dëkk. donte yëpp ji banlieue bi mais dama ne Ama donc vraiment mu ngi possédé euh, euh, supporters yoo xamante ne macha allah il est aimé Modou aussi c'est un aimé parce que am no moom public. mais xam nga combat bi dafa am mooy Modou dafa daanoon euh, mbëru Pikine mooy Eumeu Sène léegi Ama Baldé day jouer à à à à deux enjeux parce que ñaari enjeu enjeu bi mu njëkk bi mooy war na détrôner roi des arènes ba pare moom moom Modou Lo ñu ngi doog laale ci combat officiel donc mu nekk ñaari enjeu yoo xamante ne moom. Ama Balde public am da koy bëgg a gis ndaxte public bi bokk na ci li koy dopee maanaam li nga xamante ne da koy xataraay loo mu gën a sawar mais Modou Lo nit la koo xamante ne bëri caay-caay la yor moom bu dee huis clos bi dina ko avantage tuuti ndaxte Modou Lo xam ne surtout arène nationale Pikine fii euh, supporter Ama Balde la gën a jege donc huis clos moom lay profité forcément Hmm. mais loo wax ci ñu ne mi huis clos bi amaale arrangé ndax pression bi bu supporter war a teg ci moom xëy na di ndax enjeu non Ama musul am pression ndaxte Ama boo xoolee contre Malick Niang combat bu métti la te combat boobu ku ko seetaan xam ne Ama boobu wane na njàmbaarteñ euh, Tapha Tine jour boobu maa ngi sur place Gilles Balde xam ne li may wax ñu bëri dañoo doon hésité sax pour añ mu ne yéen contre Tapha Tine rek moo tax ngeen di hésité nii pour añ ko donc moom gaynde boo xamante ne xam njaaj ak joor donc yaakaar naa ama euh, pression euh, musu ko moom bon su ma neexee sama ne mooy seul mbër boo xamante ne day bëri man du ma am pression man sama bopp parce que ama moom day dox sa kaw du hésiter du calculer te xam ngeen ne Modou Lo caay-caay la boo xamante benn bennal da lay rey te da lay yóbbu à lésir te bu la yóbbee à lésir mooy perte nga combat dem yaakaar naa ne moom pression euh, du ko jàpp kii di mbër Ama Baldé Modou Lo aussi xam na ne combat bi xam na li li Amady indi ba tax na combat pièce la dina ko jëm yóbbu à l'usure mais ko yóbbee à l'usure moom lay profité te huis clos bi normalement bu ñu ko defee à 90 pour cent man Modou laa jox faveur mais nag euh, booy xool sax l'autre jour mu ngi dingat arène nationale mooy Modou loolu yëpp mu ngi lal ay pexe bon war naa ko waruma ko wax sama analyse laa waxaan ah, pour ñu yóbbu ko stade Euh, peut-être fi nga xamante ne parcelle moo gën a jege fiefam donc loolu ça lui profite mais arène nationale ba yaakaar naa aussi euh, c'est fait pour la lutte pourquoi pas ñu bëri ko foofu.